ku baax maa ngi lay ziar. oui siyaarati. ngi si jàmm. waay sant ko tedd ki bu wér a wér. waaw mais Miss Sénégal mooy def actualité fu mu toll nii yow loo ci gis. Miss Sénégal jarul ay actualité Miss Sénégal égal caga rek. ku fi présenté Miss ak caga nga. muy sama mag di sama rakk di keneen ak keneen. jigéen ju baax lu dafa ay affaire de Miss ak yooyu noonu loolu dafa leer. loolu amul ma dem te ñëw sax. ku ci présenté wu Miss caga nga. Ah, kon yow da nga gis ne que affaire Miss Sénégal waratul am. xamuñu yooyu ñun nekkuñu ci yooyu noonu ñun nekk ñu monde boobu ñun sëñ Tuubaa lañ gëm jigéen day toog ci peggu ndeyam loolu dafa leer ku fi da ngay jaay yaramu neen ngay def loolu caga moo koy def loolu amul négocier. donc kon yow lan nga gis comme solution. amul lu may loolu baaxul dañ ko war a loolu dañ ko war a éliminer mu dakk sant sëñ Tuubaa moo fi am amul leneen lu dul loolu Miss Sénégal moom maa la ko wax nii moom sawaay amul ma dem te ñëw. Miss Sénégal égal caga d' accord mais mais lan ngay wax si ñi nga xam ne ñooy organiser affaire yi ba pare di jël xale yi jigéen ñi di leen booleek ay nit yooyu pour ay chantage ak lépp di ci am. waa loolu mooy Thiaga yu mag yi rek après ñuy recruter rek Thiaga yu ndaw yi rek amul leneen Thiaga yu mag yi la rek ñooy recruter Thiaga yu ndaw yi formation la waaw boo nangoo nag yaa xam boo nanguwul tamit mooy loolu. waaw kàddu gi daal mooy Miss Senegal moom dañ ko war a éliminer dañ ko wala a total man bu ma leen buñ ma jox buñ ma leen joxoon dama leen ñoom ñëpp laay boole taal essence ñu tàkk déet waay bàkki sëñ Bamba Sénégal ñun nekkuñ ci monde bi ñun monde sëñ Touba lañ nekk dañ koy gëm wóolu ko waay xam nga du ay caaxaan mooy avancé loolu Sénégal yu ñàkk fayda yooyu noonu ñun ay Baye lañ man dafa ko seetaan te damay dégg ku ne di ci wax nii rek mais mënoo ci wax dara loo ci mën te wax lu dul égal caga waxoo fi dërëm Miss Senegal 2020 2021 bëri coow soxna si maa ngi lay ziar. delloo ziar. ba yaa ngi si jàmm. maa ngi ci jàmm ba baax alhamdulilah. waaw ñu gis actualité bi nga xam ne mu ngi lëmba réew mi hmm? ñu dégg ne Miss Sénégal bi nga xamante ni moo gagné woon couronne bi 2020 daa am nekk ci ay tolof tolof ba dañ koo violé xam nga ay mbir yu ñaaw am ci yow noo gisee loolu ak lan moo ci sa xalaat. ah sama xalaat de mooy jigéen la daal. affaire bi ni mu amee noonu dafa mel ne dañ koo chantage affaire dafa euh, Miss Sénégal bi moom mooy loolu comme que amatul benn avantage yii yëpp dem na ba di ci am dañ koo war éliminer ndax amul benn sens su ma xoolee man sama xalaat amul sens ndax Miss Sénégal boobu ba léegi maa ngi ciy soogay dégg lii. waaye gars yi nee nañ yàgg na de bari na ay miss yoo xam ne génn nañ def ay vidéo di wane ne ñoom aussi dañ leen doon def loolu est que loolu jaadu na ci réewum Sénégal. Ah, yàlla. ndax même bu daan am tamit bii moo gën a fes mhm. moo gën a fes daal te jigéen jigéen rek la mën a doon xelam matut mooy loolu daal. léegi yow lan ngay wax xale yu jigéen yi nga xam ne dañoo bëgg dugg ci loolu compétition boobu noonu bokk nekk Miss Sénégal ak yooyu. kaa bi ku ko dégg kat dina la yee dina tax nga yeew ndax léegi Taïfin boo gis mun la damaa bëgg def Miss dama Miss senegal ak yooyu te Miss Sénégal bi amatul sens daal. comme que lii mi ngi ciy am mom amatul ben sens dañ ko war éliminer dal bo sañon dal Miss Sénégal mu dotul amati. wa ma sañon dotul amati ndax ay jigen lay doon comme que yii mi ci am ay santage ak yuma ken kenn xamut ñu éliminer ka dal moy sama xalaat ma. Miss Sénégal 2021 batay ñi ngi fi ni ah di leen defal micro trottoir par rapport à l'actualité Miss lu bees. ça va. yaa ngi si jàmm. yaa ngi si jàmm bu baax. waaw yaa ngi dégg actualité Miss Sénégal koy dégg kay. moo si sa xalaat. ah loolu moom kaabu critique la de. parce que tamit nit ki tamit ngay xool ko boo xoolee comme sa yaay def naa ne doo ko tiim ko def loolu. dañ cee war a xeex loolu mu deñ dëgg fa yàlla parce que métti na trop ndax jigéen moom amul doole waaw loolu laa ci xalaat daal. donc est nga ne que affaire Miss Sénégal dañ ko war a continuer lu ñu war a la. non mën nañ ko continuer mais viol bi mën nañ ko xeex ba mu suñu bàyyee rek mooy loolu du dem nit ki lépp loo ci def bu ci découragé wu danga koy xeex ba mu jeex waaw bu ñu ko bàyyee nañ ko continuer mais affaire viol bi moom foog ñu taxaw si xeex ko moom mu dañ. d'accord da nga gis ne mën nañ continuer compétition bi mais ñu gën a xoolaat taxawaay yeeg liggéey yeeg jikko waaw kay loolu la waaw. d'accord yow xanaa da nga bëgg participer bokk. non même pas. Ah, dama gis yow ngay valider. non même pas <laughs> Miss moom mooy loolu <laughs> am na gàtt ah. waaw. kon ñu ngi lay jaajëfal. ok merci. Ah, maa ngi lay ziar. yuy bu wér yaram. waa actualité mi Sénégal lañ doon waxtaane yow lan moo ciy saxalaat ak li nga dégg jamono ji yëpp bruit yeeg viole bi ci am ak chantage yeeg yooyu noonu. ah loolu de moom gars wax dëgg yàlla. viole moom. viol moom dafa nekk euh, mbir moo xamante ni moom wax dëgg yàlla moom dafa dafa kéemaane quoi. moom mais comme Sénégal dañoo am benn habitude boo xamante ni jàpp naa ne lu ñu war a bàyyi la ndax. ñi topando te bokul ci suñuy valeur yoy dañ ko wara bayyi sama xamul lan moy ndayu ay miis ak ay fi ak yoy yoy amul man japp naa ne amul ben sens quoi ay miss sénégal ak ay miss way ak miss yoy japp naa dal amul ben ndariñ dañuy manam dañuy tardel suñu suñu suñu jigéenu réew rek parce que yi ñi def ni concours yi amul sens amul ndariñ tay ji ni ki liko dal ni ni ni li rek ko moko ay nef yi xaw ma miss la ñuy def kenn xamul lu ñuy def nii ba tey jii nii gis nga ñu ngi ko ñu ngi ko violé xam nga tu vois yàq addunaam xam nga doo comprendre daal. donc kon yow da nga jàpp ne que euh, compétition Miss Sénégal dañ ko war a arrêté. non bien sur ko war a arrêté amul benn njariñ amul benn avantage ban avantage la am ban njariñ la amul benn njariñ wax dëgg yàlla amul benn njariñ benn njariñ ndax kii nii tey kii kii liñ ko def nii tey kii yàqal nañ ko addunaam. waaw kii bu doon miis moom tey fi mu toll nii moom xaw ma leneen la ñuy wax waaye miis moom nekkatu ko moom. d'accord léegi yow lan ngay conseiller xale yi jigéen yi nga xam ne dañoo bëgg dugg ci genre compétition yi kon. non ñu retiré wu ci ba set wicc wicc ndax amul benn njariñ lii amul benn léegi bu après boo nekkee Miss Sénégal léegi après fan la lay yóbbu santa mel nulle part yóbbu la fenn fenn fenn boo nekkee Miss senegal rek Miss feneen a ci yam amul la benn njariñ moom daal lii ko képp koo xamante ni dafa nekkoon sa xel wala muy waaj a nekk sa xel bi boo na ko ci génnee ndax amul benn njariñ ndax bu fekkoon di tey jii la xew rek ñu mën a wax mais xew na xewet d'accord waaw kon daal moom mieux vaut ñu nii wax naan <laughs> prévenir mieux vaut waaw moom daal maa ngi wax ne ñi nga xamante ne daa nekkoon seen xel wala ñu ñu koy waaj di ci bëgg a dugg noonu ko bàyyi quoi ndax amul benn njariñ ñu ngi lay jaajëf jaajëf aram maa lay ziar delloo ziar yaa ngi si jàmm maa ngi si jàmm wa actualité bi Senegal Miss Sénégal coow li bari na affaireu viol affaireu chantage ak yoy yow no gissé bo ni ko gissé moy irresponsabilité parents yi la ñëk souligner parce que yor sa dom di yaakaar ci mom alal wala nga def am ci lo am ba tax nga bayiko mu dem di yendu àll di fanan àll bon li rek la mu am ah. parce que lolou liggéey lolou nga am. japp nga ne affaireu Miss Sénégal affaireu alal la. mais affaireu tapalé la affaireu tapalé la affaireu fo la fayda la. moo ko lal lépp bon ci sama xalaat sa doom boo ko jëlee da nga ko yar sa kër nga liggéey nga dundal ko mais ngay yaakaar mi Sénégal ñu dig la ay oto dig la ay yëfu tappale affaire naxaate nga jël sa doom saam ko ci tali bi mais lu nga liggéey loolu ngay am loolu la liggéey loolu la mérito jeex na amul leneen. su ko ay doom julit ah surtout ay mais non loolu wees nañ foofu ñoom xoolatuñ ay julit lañ xoolatuñ ay yéefar lañ xoolatuñ lenn lu ñu am la ñuy wut li ci def seen yoon nekku ci yaayam jarul muy génn di jooy. sa doom nga jur ko yar ko sa kër ñu am lu ñu la dikk ay oto ay yu kenn xamul nga bàyyi ko mu dem fanaan àll ñaata temps mais da lay indil biir biir rek baax baax na loolu la liggéey loolu la ma amul leneen. d'accord léegi ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy organiser compétition bi lan nga wax si ñoom. mais ñu arrêté ko jëmalewul réew mi fenn jëmalewul nit ñi fenn su fekkonte ne luy doxal réew mi la d'accord mais Miss Sénégal nga jël sa doom asaale ko ñu jël xale yi sàmm leen ci kaw tali bi après lan lay indi réew mi.

mais est-ce que du rew mo metti tam motax non mais rew mi su metté nga muñ nga agn sa kër ci yaay mbaxal sombi lu nga am nga lekko nga tok fofu su fekkente ne dëgg bëgg am lo xamni dafa extraordinaire say yaay amu sa papa amu ko nga dem mi Sénégal gaay yi sàmm la ci tali bi gars après ñu bayila mu jeex ah, amul lenen ñi ngi lay sante ñal na assalamu alaykum soxna si malaysia wa fayna la. ba yaangi ci si wa je vais bien. actualité Miss Sénégal oblige hein ah, nga dégg li ñi wax ak yépp yaakaar naa ni kenn du la ko nettali. yow lan nga ciy joxe comme sa xalaat. Hmm, man sama xalaat mooy que Miss Sénégal depuis le demee laa yëgoon affaire démb laa yëgoon affaire yi sax parce que li ma gisee situation bi c'est mal parce que da nga koo maltraité parce que ñun ay jigéen lañu ñu danga war a am fierté si ñun. parce que le fait que ñoom ñu violé ko autant que amuñu juste amuñu juste justice waxul dara toog fu mu toog ba pare les ñeneen di wax lu leen neex tutuma Aminata nu tudd Aminata Badiane je sais pas di wax que moom ku violé sa bopp yaa ko teg sa bopp ça c'est injuste loolu waru ko wax parce que jigéen la en tout cas lépp lu ko dal tamit tey ñoom noo ko noo ko teg parce que le fait que moom mu nekk mise tey mu tey moo xamante ne moo wala moo sunu lii daal moo soo xamante ne mooy sunu miisu miisu Sénégal te moo représenté sunu sunu dëkk et le fait que loolu dañ ko war a rafetal et xam naa si communauté bi tamit je pense que là-bas

lu mu def nii tamit parce que lu ko dal tay moko tek bopom je suis pas d'accord avec ça. parce que niñ dañ né lan mo tax bi loolu xewé mom génnul porte plainte wala mu dénoncé teelul wax. loolu mom anduma si parce que jigen la xamna situation bu mu si toolee mënu ko woon ko expliquer parce que so nekkee ni def looloo ba paré nan ko expliquer nit le fait que da nga ko piquer dorogé ko loolu nan nga koy mën a expliquer nit loolu man xawma nak nag nit mun na xalaatee noonu man damay yakani sénégalais sont des personnes yo xam da nga soxor man jigen la man li suma ma tay xawma xaw ma nu ma koy expliquer nit kon donc ah dama wala rafetal xam lu may wax maanu si parce que mom mo am droit wax lu muy wax pare kon ni ci wala war ko wala ni ci wala manu a gëm ko man loolu loolu daal laa si xalaat daal. en plus jigéen la ñu wax ko soutenir. oui en plus jigen la nga ko soutenir. d'accord légui lan ngay conseiller lan ngay conseiller ñi nga xamante ni tay ay jeunes lañ comme yow bëgg dugg ci compétition yu melni ni Miss Sénégal. li lo son suñu parce que ñu ngi am ambition bëgg ko def et aussi nang koy diglo genre que fay bi parce que nee na bokk ci contrat bi ne dinañ ko fay yooyu dinañ ko retardé ko ça c'est ignoble loolu dafa soxor ndax man si fekkoon sax jigéen kese la def na def bêtise bi sax ko étudiant yaay elle est malade elle est souffrante mu ngi sonn si coono bu mu nekk mënu ko expliquer parce que jigéen la ay mbokkam ñu ko averti ñu ngi ko ne sax wax te aussi dafa incité wax parce que li nekk si xolam dafa fort ba tax mënu ko parce que yaay la ñun ñi suñu yaay tey ñaanu yàlla tey ñuy am ñun ñi nga xam amagunu jëkkër di am dom, te doom boo xam amul bay. xamuñu kam moo ko jur justice dafa war def yonam, parce que li du yon. parce que yàgg neen def ay violence yu mel te ken waxu d'accord Les tënk bu wax ne ko daal ne yoon def liggéeyam ñu jéem a xool la dëgg ji D'accord, nous les merci beaucoup mais encourage encore plus de nous tous je sais pas son nom parce que c'est très douloureuse parce que su doon man depuis parce que dama ko suis comme ma sœur comme sama ma je suis ma je suis dinañ ko pour ko Fatima waaw chers téléspectateurs nous ngi ni un mini reportage par rapport à l'actualité. comme j'ai l'habitude de le dire Fer TV c'est la télé des événements la télé des actualités mais aussi la chaîne du bien-être Miss Sénégal 2020 2021 problème yi ci am TV dans les coins de Dakar Nous leen mini reportage les Sénégalais ont donné leur avis c'était Cisco votre docteur Love I'm out.